sant buur bi tabaraka wa taala lu ñu may fekke ko ay ati at ci bis nga xam ne suñu maam soxna Maymuna radiyallahu anha moo ko sosoon am toll fi tey di sant Xaadimu Rasuul ba juróom wa eh, di ñaan seen Muntaxa Mbakke li ne ci bopp yoon wi suñu borom jàppale ko may ko wér ba naaj yi mu naan mu eggale ko eggale waale naaj yi ko jiitu woon tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Abdoulahi Lahat sëriñ Abdou Khadir sëriñ Saliou ak doomi sëriñ Tuubaa yëpp góor ak jigéen may ñu wér ak kattan ba ko moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëñ Tuubaa suñu moom suuf si ñu ngay sant bu baax baax ci taxawaay bu rafet ci bopp njaboot gi di sant bu baax suñu xarit itam suñu rakk Sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di sant sa waay sa doom yi fi jógee léegi muy Baye Cheikh ak Sëriñ nga xam ne bég na lool tey ci fekkaat leen fi ndax euh, fukki at ak juróom-ñett ci ginnaaw Serigne Saliou Mbacké daf maa yónni woon ci buuru Maroc man ak Chérif Habiballah ci duruusul xasabiya ak ramadaaniya ñu demoon fa ba lenn li Serigne Baye Cheikh doon sax am na ca ndax ba dem euh, yóbbaale nañu Masaalikul Jinaan ak yeneen téere jox ko teg ko ci loxol buur te loolu sëriñ bi yaatal ak xam ne sëriñ Tuubaa la fi yóbbu kon ñoo ngi sant bu baax naa sax sëriñ Maxtaar am na bagage yi moo ko indaale sant ci loolu bu baax bi sant itam ñi ngeen ko jaglelee sunu maam Cheikh Mahmoud Dalil Baara ak ñu Cheikhul Khadim ci. loolu itam mu nawirul bunyaan li mu bind nga xam ne kon lii baay Cheikh doon wax ne dañoo bind loo xam ne bokkul ci sëriñ bi moom boo ko gisee danga xam ne ca deret ja du Cheikhul Khadim mbind ma ak xam nga Cheikhul Khadim ci mbindil wa yokku na ci te feeñate bu baax baax koy noonu bëgg ci turandoo bu baax baax te njaboot yi Serigne Moustapha yebal nañ fi ñu teew fi teewaay bu rafet bii ñu fi teew yàlla dogal itam xar baax am ci ndax la tàmbalee ca maam maalam ba ci moom mën nañoo wax ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi muy ñu baax ñoo xam ne boo seetee ña bokk Maamoor Anta Sall kenn ku ne sa moroom moo la gën a loolu sa bopp ñu bokk ñoom ñëpp jàppale Xaadimu Rasuul alhamdulilah loolu mu xar baax la ndax daawul am bu jëkk xotti baax xar baax la daawul am bu jëkk borom def ko muy kiimaan ndax dafa doxantu ci xam-xam dafa tëb la couleur inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqaa wax fa mu ko féetale abdal xadiman wal muhayminu seddaloo ko suñu borom tabaraka wa taala kon xam-xam lu ci am solo la ndax euh, Seydina Ali karamallahu wajhahu dafa wax ne al ruuxu xayaatul badan wal aqlu xayaatul ruux ruux gi euh, jëmm ji moo ko yàllu waaye nag ruux gi moom xel moo koy suuxal te xel xam-xam moo ko war a lal xam-xam suñu borom ba mu wàccoog ñun mooy ba mu joxee xel xel moom nag dañ ko war a jëriñoo ci xam-xam buy jëriñ ndax bu jëriñul rek boroom xam-xam bi ni ko sëriñ bi waxee léegi ne mbaam mu safi téer la ca des mooy ndono yi fi mu jaar ba egsi ci ñun mooy mag ña la leen Sëriñ Tuubaa jaraloon ak joxañ ba mu leen joxañoon ci njàngaleem mu tedd moomu la mu leen jàngaloon ci wàllu ko nga xam ne dañoo investiroon seen lépp bëgguñu dara xooluñu dara la leen sëñ bi joxañ la leen loola ca leen jëm la mu leen tere rek duñ ko sax a jéem a def waxuma laak naam dañ koy bañ kon loola la sàmm ba teg ko ci suñu loxo muy euh, la ci biir mooy baaxin bi ak li euh, mu ko waxee ibaadaat yi nga xam ne euh, amalu saalix bi mu wax moom ah, kashful xelal xalaal bi mu wax loolu Sëriñ Tuubaa na la doon waxee digal ñu ne ñu jaamu yàlla ba nga xam ne day mel ne euh, suba fi jóge euh, di liggéey ba nga xam ne day mel ne mosuñu fay jóge parce que loolu mooy projet de société loolu la fi bàyyi ba tax na tey fi mu ko basé moo di ci volontariat ci coobare doomu aadama bi defar sa xol defar sa roox sa jikko jox lay makaarimul axlaaq ba nga xam ne li ngay li ngay def dafay sedd sa xol boo ko seetee ci histoire am na ci russe am na ci ñi jëkkoon latin yeeg grec yeeg lu ne defloo nañ ko doomu aadama yi mais doomu aadama yi boo ko contraindre ci loo xam ne neexu ko bu ko defee itam bu baaxee tey du baax ëllëg kon nanu gën a euh, ci biir loolu itam li nga xam ne dana mën a téye ndono bi mooy njaboot gi mu fi bàyyil boppam nga xam ne dañuy xool ci moom ci ñoom kenn ku ne di ko jéem a roy moom itam na mu roye woon sallallahu alayhi wa sallam ndigalam ñi mu fi ne woon ñu jiitu ci di ko topp tereem yi ñu jiitu ci di ko moytu bu ko defee buñ ko àndandoo kenn ko ne yéene sa morom jàmm na ko waa kër maam Anta Sali yéenante woon sa morom gën a la si bopp yaakaar naa ne bu ñu defee loolu yëf yëpp dana sotti kon euh, noo ngi di wax rek ne euh, kenn ku ne ci wàll boobu pour nga pour nga liggéeyal ci sëñ Touba la ca war moo di nga jël sëriñ Touba jël turaas bi la ca biir nga di ko dundee di ko jëfe di ko xalaatee di ko waxe te di ko tasaare ba pare def ko ne takk ndeer ndax sëñ Tuubaa daf ñoo joxañu lumière ab lumière nag dana am ker mooy takk ndeer takk ndeer boobu nga def ko muy lislaam di sharia nga def ko muy xaadimu rasul ku la gis mu nekk seetu ku la xool ci yow gis ci sëriñ Tuubaa kon alhamdulilah noo ngi wëlbatiku di ñaanalaat sunu maam soxna may sunu borom yokk leeram jëmbat na lu rëy ndax lii mu fi bàyyi e, sëñ Maodo Mahfous sëñ Cheikh Abdou njaboot gi di ko réel e, doy na ci ni ko sëñ Mokhtar waxe doy na ci exemple ci loo xam ne ndono loo xam ne yaa ngi koy réel ndax jële soxna may jële na ko ci Sëriñ ak ci magam yu baax yi tasaare ko ja jaarale ko ci njabootam e, ñi fi jaar tey si def waxtaan yi ndono li jaar na ci ñoom amul benn werante alhamdulilah la ca des kon mooy nu fexee góorgóorlu ba kenn ko ne takk seetu boobu ma la ñuy wax muy sharia mu ndigal yi Sëriñ